والقلم وما يسطرون asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh baadiŋol kalbe kontoŋ ka yitandir ke kula mu ye lon ko wo le yen siijaŋ délégation mu ye lon koye futata naŋ moolu majanto muŋ keta OCSD mulu ye lon koye telle natanan bi kana kafum fe gudon pujan komi be tourné mun na région kono taari anin département i folutanan kabin nan seju anin dinkira jamal to bi inata ma be gudon pujan ila na sababu bu muneti wole mu ñinti ko ko ka fo ko alqur'anu safeña mu ye lon ko a keta bulla safeeroti par ce que ni tataji ɓe ko jama jama sayan ɓe tembo mum to machine safere ole ɓe keeri mais pour kar koano ka safe bulla safere o safere o mum yalon ka ɓe kela safere kendoti itel kam mamma wo fonnalla o latine lañi ong ye bulanan pour kana nan kamol makoy kamol bulmutañi tañoya kono mum yalon ka keta alquran ola fannati wollel ɓe siri nanten ñimbiram cham wole mum masulu lajna al alamiya wolɓe siri nanten nañi mara karola ani mun baɗuma fanan ani délégation mun nata ñonna nañin keɓa mun keta mamun falti wala mas'ul sharka a tele ɓe siri a balananten ani nañin caméramano mu yalon ka keta murtada gayti murtada gay wala mu yila caméramano ti ani mun nata ñon fanan na wala mu modu fayti wole mo sayiq wole mo ila soforoti ni munnata ñonna iftata janñin gudon po ñe 11 heure watula pour kananan kanje kam bul muta do kuño yakuna min tan ko ila na sababu mo wolti be sakala muto ñama wassalamu aleykum wa rahmatullah di ñaan yàlla liggéey bi ñu suñ borom boole mu liggéeyal alxuraan suñu borom defal ñu ci ñu amal ci ndaw ay ndam yu kawe suñu jot man maa ngi tudd Mamoun Fall eh, ci bokk ci société bu ñuy wax c s compagnie Serigne Seck Sénégal foofu nag barab la liggéeyukaay la boo xam ne ay sëriñu daara ñoo ko moom euh, ñi ngi yëngu ci ñi ngi jaay ver ak aluminium euh, am nañ jigéen soor fii tàmba am na ak dëkk yu bari nga te ni lépp lu jëm ci verre yi verre yi ñu def ci bâtiment yi ak aluminium yooyu ñu liggéey porte fenêtre yi moom la ñuy liggéey yàlla dogal nag ay donga daara ñoo ko moom comme nii rek ñu yaxantu ci marché ba liggéey ba barkeel barkeel eh, ba màgg mu gis ne comme que kenn ku ci nekk da ngaa warlul sa askan société boo samp rek da ngaa warlul askan eh, di jëf mooy action sociale ñu koy tuddee responsabilité sociétale seetras nag ne comme que ñun waa daara lañ ñun li ñuy jël di ko delloo ci askan wi dañ koy delloo ci daara léegi tamit nekkoon loolu ñu ne nañ xool eh, benn pàcc ci alxuraan foo xam ne amaana kenn yëngoogu fa wala wala yëngoo aajo soxla woon na ko mu ñu jëm fa bu ñu xoolee nag ñu gis ne bind arxuraan ñu gis ne bind arxuraan pàcc fànn la boo xam ne dafa mel ne kenn yëngoogul jëm ci ñu ne nag lii te day lu te day loo xam ne lu ko aajowoo la loolu incha allah bu ci saam dikkee dina leeral bu baax a baax ñu ne kon kon bind bind arxuraan mokkal ko di ko di ko bind kon loolu kon loo xam ne ni mi ngi deltu ginaaw ci barab yu bari barab yaa ko nekkoon sax da nga xam ne ñoom dañuy ko xamee woon moo biir réew mi ay Tuubaa ay nangam ña koy bàyyi barab ci ne nag ñu sax ñu aadawuñ ko moom ñoom moom kon awtuñu te li ko waral bari na loolu incha allah buñ duggee ci biir waxtaan wi dañ gis ne lu li ko waral lu baree bari la kon kon ñu ne kon léegi kon société bi kon a jàpp ci ñu dellu mbindam alxuraan dellu si ci daara yëpp nga xam te ni képp ku daan bind ba ba di ko bàyyi mu nga joxaat ko àqam képp koo xam te ni daaw ko def ñu te ñu ngi jàppale ci ànd ko yow ba nga koy ba nga koy def kon lii mooy tànk yi nga xam te ni moo ñu tax a jóg loolu nag ngir amal ko dafa am tamit ay fànn yu bari yoo xam ni da ndaxte bokk na ci kon benn fànn bi mooy téere yi xale yi jàng dañoo gis ne téere yi daa manqué ndaxte li ëpp ci téere yi ñuy jàng ci réew mi téere yu ñu jëlee ci ay machine ñoo ko móol jóge ci bitim réew kon xale yi mënuñu cee jàng bind kon nag buñ bëggee ñu mën a bind kon faaw ñu am téere yoo xam ne dañu ko bind loxo loolu kon tamit société bi daaw jéeg ñëwoon na daaw diggante bi dafa am na ci dox ñu móoloon ay téere indi ko yooyu yooyu kenn plastifié koon waaye ren dañ ko plastifié ndax bëgg mu gën a ñoom indi woon nañ ay bâche tamit waaye bâche tamit gën nañ koo tiir gën nañ ko amélioré ngir bëgg kon xale yi am loo xam te ni dañ koy man di ko xool bu ñuy jàng buñ ko loolu buñ ko bu amee rek ab jéego am na mu desaat euh, jàngalekat bi nga xam te ni mooy jàngale ak xale yi comme que mbind dafa ab xam-xam la boo am ay sart kon day aajowoo tamit day aajowoo ñu jàppale jàngalekat yi ak jàngkat yi mu ci formation. loolu tamit tàmbali nañ ko mooy ma ci euh, daaw ren jii ñu ngi koy wéyale incha allah ni ñu koy defee comme que lu ñuy tàmbali la bu ñu xoolee ba xam ne nii baax na dañ koy daal di mën a yaatal fépp. loolu tamit société bi mi ngi ciy mi ngi ciy ànd ak waa Daara. mu après mu des boo xam ne nag mooy ñetteel ba moo ci gën a euh, siiw te ñëpp yëg nañ ko mooy concours bi ndaxte ay nit boo bëggee ñu sawar ci dara dañu nga boo ci boo ci boolee jongante tekki ay neexal day tax nit ñi gën cee sawar day tax nit tam nit ñi gën koo xam kon muy concours boo xam ne ñu ko tudde concours yaatal mbindum alxuraan ñu koy amal at mu jot nga xam te ni Sénégal gépp ci bokkandoo loolu tamit incha allah sëñ Saam dina ko leeral ni ñu ciy bokk ak yëpp ak ak ni muy demee kon société bi ko ñett yi la gis ne ci yëngoo ànd koo ak waa daara donte ay waa daara lañ sax waaye nag dañoo jël lépp teg ko ci loxoy waa daara kon loolu tamit ñoom sëñ si am ak waa fédération beeg yëpp ak waa rabita bi ñoom ñoo yor liggéey boobu lii daal li nga xamante ni moom lañ ñëwoon ànd ko ak yéen bëgg nag ba bañ fay mën a egg lii ay jukki la waaye nag kaamil bi ci boppam moom mooy objectif bu mag bi nga xam xamante ni moom moom day mën a jàppandi ci daara yëpp foo dem mën ko faa fekk xale yi mën cee jàng asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen suñu mbokk sëriñ daara yi ñu fekk fii ci béréb bi man maa ngi tudd boroom Sam di ne ci comité scientifique bi bi yore liggéey bi ci wàllu xam-xam ànd ak sëriñ Mamoun mi société bi ñuy wax seeta 3 s yabal ñu ngir liggéey bi mu junju Euh, dañu gis ne alxuraanul karim dafa nekk liggéey bu yaato yaatu liggéey boo xam ne ñu bari ñu ngi ciy jàpp mais dañ gis ne alxuraanul karim démb ba tey ñaari tànk lay doxe mooy jàng ak bind bi fi sayidna muhammad alayhi salaam nekkee xam ngeen ni amoon nay bindkat yu mu jëloon yoo xamante ne bii lépp lu ñu wàcce ci moom ñoom ñoo ko doon bind ba bi fi jógee alxuraan lépp bind nañ ko ci ay béréb yu tàqali ko saaba yi taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ba tax mu agsi fii ci suñuy loxo kon bind moo fi téye alxuraan karim su fekkoon ne mokkal la rek kon diggante bi day dagg nit ñi dañuy faatu kon bind moo ko fi téye ca démb ba tey dañ gis ne nag daara yi nga xamante ne bii ñoo ko baaxoo woon aada jooju nga xam ne culture la woon ci ay béréb ci Sénégal dafa commencé dagg man ñun loolu mooy suñu aada ñun mbàkke mbàkke yi bala ngaa def dara da ngay mokk alxuraan karim bind ko te doo ko gestu loolu mooy suñu aada ñun soo paree looy jàngi nga door ko jàngi aada jooju nag bari woon na ci loolu ci réew ñu ko doon def mais gis nañ ne lu bare bare loolu mi ngi jeex daara yi ko doon defe ñu ngi koy bàyyi yi ko daaw def taxul ñuy wax société bi nag C3S bi mu jógee dafa gis ne wàllu bind ak lu ci aju moom gisuñu kenn ku ci yëngu ci anam bii mu ne na ci dimbalante ak daara dimbalante boobu ne daf ko jaare ci mbootaay yi nga xamante ni ñoo yëngu ci daara ci réew mi te gën cee siiw muy fédération bi bi ngeen xam man maa yore lépp lu jëm ci concours man maa ko fi ak euh, lu mel ne rabita bi xam ne da ngeen koy dégg léeg ñoom ñoo yore liggéey bi ci wàllu xam ci alxuraan karim boobu nag daf ne ngir nit ki sawar dafa kere lu ñuy wax musaabaqa wataniya fi rasmil quraan al karim xifzihi concours national pour bind alquran al ak mokkal ko concours boobu nag ngir nga man cee bokk dafa am lu mu laaj benn ba mooy da ngay mokkal alquran al karim kaamilan ba mu jeex lépp lu ay ci wàllu question yi man lañ ko dénk fu ne fu ne la ñuy jëlee ay laaj candidat bi bu ñëwee dañ koy laaj bi dañ koy def ci benn enveloppe mu nekk benn rebond enveloppe bu mu yëkkati laaj ba mu ca fekk loolu lay bind kon faw da mokkal téere bi yëpp ba mu jeex soo ko mokkalee pare itam day laaj li ñuy woowee ras rasm nga mën ko bu baax xam ngeen ne langue arabe ak alxuraanul karim woote nañ ci ay béréb yu bari ci nu ñu koy bindee te yaakaar naa ne loolu xam ngeen ci dara dégg arab mën a bind lettre arab taxut a mën a bind alxuraanul karim loolu lay wóor leen bu baax te xam ngeen ne itam maanaam mokkal ko itam taxu ko mën a bind yaakaar naa ne fii boo taxawoon fii jullit bu ne daanaka mën nga ne mokkal na faatihatul kitaab waaye soo ko bind lu boo amee téeméer jàppal ne xëy na juróom fukk sax xëy na duñ ko ci mën a bind mi ni mu baax kon ni ñu war a mokkale noon la ñu war a bindee bind boobu laaj laaj na kon nga mën rasmu rasmu xuraanu karim bu baax euh, masalan boo doon bind ci arab rek bul naagu laa tay as ngay wax laa tay as taa yaa am za euh, nabra moom lañ koy bindee mais laa tay asow boo ko bindoon fii ci tableau bi ci bi ci suurtu yusufa wala tay asow boo defee taa da ngay def benn alif def ci benn daara doore bind yaa tay asow continuer loolu spécial la kon faaw nga mën rasmul quranul karim su paree itam faaw nga jàng ilmu dabt alquranul karim naka lañ koy maasee xam-xam bu beru la bu beru fële moo lay wax baat bi da koy maas baat bi doo ko maas maa ngi koy wax démb rek masalan ma aghna anni maliya halaka ani sultaaniya boo defee waqf euh, sultaaniya xaa bi doo ko laal dangay ngay shàdd bi ci topp loolu dabt moo koy jàngale soo boolee ñetti boo mokkale alxam karim man rasm man dabt day laaj nag dañu bëgg nga man bind mbind mu rafet parce que dafa bokk ci mahaare la boo xamante ne bi xam ngeen ne euh, day rafetal xam-xam lii lii ngeen gis nii xale bi jël première ci première édition bi moo bind lii ci loxoom moo ko bind ci loxoom du machine Cheikh Anta Gaawaan moo bind lii ci loxoom dañ bëgg nag réellement réew mi yëpp mën a bind ndax dafa bokk ci alxuraan karim aussi itam dafa day day rafetal xam-xam loolu moo tax sharika bi jóg di def lépp lu moon di tawaye nit ñi eh, di leen di wax ak ñoom kër ñu delloo si bind ci daara yi ba delloo si bind ci ci kër yi xam ngeen ne école yi moom bu ñu commencé rek si yi la commencé bind fii gis naa ne fonk nañ teel a bind trop daara yi xam ngeen ne tournée daaw jaaruñ fi mais dañ doon dem daara par daara daara par daara lañ doon wër daaw fu ne du ëpp téeméeri daara dem nañ fii teg suñ tànk daara ju ci nekk gudomp jaaruñ fi daaw loolu tax biñ jokkoo ñu ne nañ fi jéem jaar mais ren dafa xat mais sinon dañ doon dem ci daara ju nekk ñu xool alliwee xool nu ñuy jàngee noonu lañ doon def daaw te yow man maa incha allah da sana xum bi haada dawl incha allah kon ñu xam ne dañ bëgg daal delloo si bind ci daara yi jàngal leen bind yi tàggat leen gisoo foro fii boo xoolee dañ ko séparé ngir rek ñu jàngal xale yi bind araf bu ne ñu indi ko format yi mu amee miim bidaayatul kalima miim wasatul kalima miim aaxirul kalima noonu lañ ko noonu lañ noonu ngir ñu tàggat xale yi ci niñ leen di jàngalee école yi ci bind ñu jàngal leen bañ xam naka la ñuy bindee ye mum fanante ngamra a pour ka kafuño malo ndoro pour mool sa faamu wolem ñin tiitel kam mam ma mun na ñin safeerolo mu ka ar ko ano safee par ce que comme abota fo dolbi alquran to anin kalimato dolbi alquran to ni ya tarai karanta le ya foi ko ya safe arab kan da mana ni ya safe ani alquran safe nyata kila kilindi ya nati kamilu to ñami donc kuy tel lafta mun rasmiyan pour ya safe kamilu to ñami momo ya parkerise ya to pour ni ya foi ko ñim pas kar safe sura kar alquran dinkira kar ya safe kuma bin lari ñami alquran to i ka wala ñini o safere ñanaki malle fi way filimol bul parce que ay mum fo nun toñalon alqur'anu ni yaja man a safeerole a man fili ni ya tara hifdoda man noon toon min num dolɓe fillal a ɓeyde filla bar dolɓe fillal bar safeere fewo safeere o miyan ko um yatar laari hol kafum kafu ñom fa keta kamil comme um mbeyalo ñaami donc o safeere o fana aɓe jele rasmiyan comme aɓe ñaami a complété ta ñaami donc yiɓe wole ñinola jee bari ye ñinne fana foy ka maman kujamal to ñin safeere o ñamanke ka ko ya safe yano concours o lebi jee comme a yafo ñaami nin a dato sita ni a décanté yafo mol biye tuuse maman yeela niye page kilni fo ya safe kuma be ñaami ni ya safe ala safeeroy ba sambara dulado kuma fo ñaami jiguinchor ya jiibe jeeto ya corrigé jeeto fen fen mu ya lon ko ye gagnon soto walla période o fonko ikata premier deuxième di inchallah gagnon bi a fanda mu i be contandi dal donc ñim be mu l'islamu makol ñim be mu dino makol surtout alqur'ano pour ka ci kandi ñim be mo da manedi parce que ka modoji la alqur'ano karan bar nim bi kay ko safeero ke ala safeero nya ade mun karan fan anin ay mun safee vraiment aka jase bakere mbiga wolonne i kamira ko kafu ko amon bisimila ile safe wala sama ko kafu ka kandol na dum yanka amon ki alquran wala safe nya kawndi barabe nyami nante nimu ya kosyo nyama yalo akala nyami kuma ay dantal mun na tun janta fon ya fran france nyami be yalonne ni ko fo nyato e safo no facilement wala ni ko safe nyato e sa safe no facilement e majibe mais est ce que abelari alquran to wala nyama woto ni ya korsi yalon kabilari alquran to nyama ya natin do nyama wala muyitella hadafo di surata donc mbe sa kalamto ñama ngan gor gor fana dindol mul yalon ko mbe karandola ko formation ka jika ka di la surtout safero ka yitandi la fam fam arkano ka safe ñami pour mun sa ne sa mutano hakilu la fo sa se bien ñin concours fe e se nafa sot no inintel bi anila alfa wululal mu melabe amin tan ko kumo pour ka kada a solata walla je bari tel be mamo mun na jandam manten dula betulon tout comme a yafanu ñami a koye sawo mu muntinu wala mu dara bari ni aji yakinanten watole mansiya walatini mol kafuñuma dinkira kilin kananan ka mol je bari inchallah bina willale maratan okhra pour kafuta darol to ke jiibe ila karan din ñaaɓe ñamani ila safiyar ñaaɓe ñamin dindiwol fe amin tan ko ñinum kuno kumoti mu yalon ko a lafta pour ka dimum la pour ɗum samoy wassalamu aleykum wa rahmatullah di rafet lu baax a baax seen gis-gis ci mbind bi ci société bi taxawaayam yëpp ñu ngi koy rafetlu yéen tamit di leen ñaanal rek yàlla may leen kattan waaw yàlla may leen kattan. après nga mo mo biya mo nyami donc ke tendu ke jay ilani mouvement farata la c'est ce symbole là ibe silo mum fanan kan ala talla e kanta quoi ñu ngi leen di ñaanal bu baax vraiment yàlla seen coono bi tamit yàlla may leen gudd fan ak jàmm ak wér le ak wér gu yaram bi jaay seydul wujuhil mustafa sallallahu alayhi wa sallam incha allah parce que yéen ci yoon yàlla moom comme ni ngeen di xamee man kaana lillahi kaana allah ay waa shukran léegi ñu defal leen ñaan bi rek incha allah anta bi ni'mati rabbika bi majnun